salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw euh, juge bi jox na verdict bi rek ñu bëggoon xam rek lan mooy sa réaction par rapport euh, honorable député Bakary Diédhiou maa ngi bokk ci parti président Ousmane Sonko euh, bi nga xamante ne tey état du Sénégal da koo jaay doole mais Ousmane Sonko c' est un dinosaure politique laa ko mën a wax dafa fooyee xel le président Macky Sall et son camp. parce que ñun yëpp lii nii sóoraale nañ ko Ousmane Sonko ñoom dañ defe ne président Ousmane Sonko du mus a dem ci justice bi pour faire appel pour faire quoi que ce parce que tout simplement Ousmane Sonko dafa mus a wax ci justice bi am na ñoo xamante ne ñu ci gën a bëri n'est-ce pas euh, c'est des juges corrompus léegi ci loolu ñoom dañ defee ne président Ousmane Sonko comme nee na moom amul yaakaar ci euh, justice bi du musa dem ci yoon mais malheureusement foofu la ñu daanoo. président Ousmane Sonko dafa leen a permettre ñu salfaañe ay ak àkkam ak yelleefam parce que xam na ni su ko waxee état du Sénégal du jéem a respecter benn benn benn droit am ce qui fait que ñoom décision bu ñu jël décision de radiation ni ko defee jaaduwul dem nañu ci Ziguinchor n'est-ce pas le 12 euh, euh, octobre le juge Sabassy Faye a pris sa décision mu ne mu neenal euh, état du Sénégal décision bi ñu ñëw introduire recours à la cour suprême mooy droit la état du Sénégal am na droit n'est-ce pas def recours def nañ ko ñu dem cour suprême mais cour suprême bi lu ñu wax nee nañu euh, le juge Sabassi Faye fu mu sukkandiku pour joxe verdict en faveur du président Ousmane Sonko euh, dafa dem ba créer yokk ci leneen ci code Euh, pénal bi. maintenant euh, mu ne leen da koy renvoyer tribunal grande instance de de Dakar ñëw nañu barki démb juge bi statué avocat Ousmane Sonko layoo nañu n'est-ce pas wax nañu euh, ni ki président Ousmane Sonko nuñ ko rajee ci fichier électoral bi dañ ko jaay doole c'est de manière abusive teguwul ci yoon. maintenant le juge ne tey lay joxe verdict bi xawoon nañoo ragal parce que xam nañu. ni ci diir ñaari fan yi lu nekk mën nañ fi xew mais heureusement que lu juge est resté lui sur luy même pour wax le droit rien que droit parce que barki démb képp ku fi ñëw ci procès bi yow xam nga ni kii juge bi su waxee su waxee su waxee ci akulaay taalam le président Ousmane Sonko sera réintégré sur le électoral juge bi loolu la ñëw dëggal tey ne état du Sénégal nu ñu génnee président Ousmane Sonko ci fichier électoral bi dañ ko jaay doole teguwul ci yoon mu ne leen également parce que avocat yi état du Sénégal lu ñu bëggoon mooy ñu naan président Ousmane Sonko bu mu defee euh, euh, recours bi di naan euh, nanguwul nuñ ko radier ci fichier électoral bi nee nañu dafa passé cinq jours yi yu ñu ko mayoon pour mu def recours bi mais malheureusement ils n'ont absolument rien compris ñoom dañuy sukkandiku. ci benn recours bi euh, avocat Ousmane Sonko def au niveau de la CEDEAO nee nañu euh, boo gisee avocat Ousmane Sonko def recours au niveau de la CEDEAO kon ñoom yëgoon nañu bu yàgg ni ki président Ousmane Sonko dañ ko radier ci fichier électoral bi alors que euh, les euh, les avocats du président Ousmane Sonko lu ñu defoon mooy introduire une condition condition la ñu waxee su fekkente ne li euh, li ministre de la justice à son époque Ismaïla Madior Fall wax. su dee dëgg la ñoom ñu ngi def recours pour ñu neenal la radiation du président Ousmane Sonko donc xam nga ñoom dañuy wax au conditionnel donc euh, euh, avocat yi de l'État foofu la ñu daanoo parce que ñoom dañu defee ne ñii yëg nañu dañoo wax ni que président Ousmane Sonko dañ ko radier ci fichier électoral bi kon loolu jaadool euh, il fallait que ñu annuler kii bi mais heureusement que les avocats ont été très intelligents les avocats du président Ousmane Sonko c'est les plus euh, poignant du du barreau de Dakar tout le monde le sait. de l'autre ñu ngi laam-laamee mën nañ def yoon may yoon may na leen loolu. est-ce que loolu mën li nga xamante ne moo di projet bi. déedéet déedéet euh, euh, la dernière fois ñoom ñoo wax ni que le recours n'est pas euh, suspensif. lu tax cette fois si mu war a nekk suspensif le président Ousmane Sonko incha allahu rabi décision bi bu ko waa DGE waa préfet n'est-ce pas jotee le mandataire Ayib Daffé dina dem DGE jël le fichier du président Ousmane Sonko et le parrainage n'est-ce pas est lancé pour le président Ousmane Sonko ne vous en faites pas xam ngeen ni ki parenage bi dafa am parrainage bu ñu tuddee parrainage citoyen mu am euh, parrainage des élus territoriaux mu am le parrainage des députés le président Ousmane Sonko dans son parti nous avons la possibilité de le parrainer par le parrainage euh, des députés même si à la dernière heure nous pouvons signer le dossier du président Ousmane Sonko et président Ousmane Sonko dina bokk ci élection bi parce que c'est une demande sociale c'est une demande de tout le peuple kenn ku nekk gis nga tey euh, bu ñu waxoon leneen leneen xaj na fii ni leneen mënoon na xaj mais tey le peuple sénégalais est en train de de jubiler maintenant il ne faut pas écouter certains avocats laudateurs xam nañu ñoom lu leen itteel lu leen itteel mooy lan askan bi bañ a jubiler mais je demande au peuple sénégalais de jubiler

dama amoon yaakaar yaakaar boobu musul musuma musul jóge ci man bi ñu commencé ci mbiru Ousmane Sonko yi depuis 2021 ñu topp ko di ko bundu xataal di ko persécuter di ko sonnal jéem ko toroxal jéem ko détruire politiquement jéem ko détruire socialement jéem ko détruire humainement lu ne ñu def ko man musuma tàggoog yaakaar ni seen pexe yépp dina gànt parce que Dieu aime la vérité yàlla justice la bëgg yàlla dëgg la bëgg lépp lu ñu mës a yëkkati teg ko ci kaw Ousmane Sonko pour toroxal ko yàlla fexe na ba retourné loolu looloo topp di dox a dox dox ba tey bi ma xamee loolu bu wér. am ci yàqiin ni yàlla du ko toroxal parce que dafa nekk ci dëgg te ñii koy jéem a xeex di ko jéem a toroxal di ko détruire du ñu am ndam mukk ci moom moo tax bi ma fi génnee barki démb ci procès bi ñibbi dama ne ah mbiru justice la fu ne mën na faa jaaree waaye day sama yaakaar bi yàgg nekk si man du du yàqeeku jamais du ma changer d'avis gëm naa ne bu ñu yeggee li saaba si fay def Ziguinchor dinañu amaat beneen juge boo xam ni bii xam na ni dëgg mooy mujj xam na ni lii mu juge fii du moom ci boppam kese moo ko jugé du nit ki waaye kàddug askan wi la yor parce que justice dañ koy rendre ci turu askanu sénégalais juge bi tey kàddug Sénégal la yor donc Sénégal ci boppam peuple bi yëpp moo taxaw ci tribunal bi ni état du Sénégal amul dëgg ci Ousmane Sonko. juge bi ci kàddu Sénégal dafa ni Ousmane Sonko moo am dëgg ci seen kaw Ousmane Sonko li ñu ko génnee ci list électorale yi jaaduwul ku wax nag li ñu ko génnee ci liste électorale yi jaaduwul wax nga ni. li taxoon ñu génnee ko maanaam ñu jàpp ni ñoom dañ koo daan ci procès contumace ak yooyu loolu lépp boo ko raisonné day waat day wone ni màbb na donc Ousmane sonk li ma ciy njëkk jàngat mooy et ma bëgg Macky Sall dégg ma bu baax a baax le président Macky day dinaa ko wax président de la République makisal dama bëgg mu tirer si toutes les conséquences mu xam ni mënul am ndam ci Ousmane sonk mënul nekk parce que kenn mënul am ndam ci sa askan benn njiit ci àddina ba àddina sosoo ba tey mësuloo song sa askan xeex ak ñoom am ci ndam mësul am. mais est-ce que ragaloo leen parce que yaa ngi ànd ak mbégte ragaloo leen comme ni ko galgal gis nga galgal mooy li ma wax ni ma waxee dafay tax nga comprendre ak lu mën a génn Ousmane Sonko am na ndam ba noppi ñaata galgal la ñu génnee kan ci ñoom moo yaakaaroon ni bu ñu ñëwee fii tey dinañu am lii. am nañu droit ñoom def recours am nañ ko état bi mën naa ni du ñu ko jox benn fiche parce que dañuy demaat ak moom ci yoon yoon may na leen ko. loolu moo tax ma ne président Macky jarul muy dem ci yoon jaratul ñuy def ci recours da ngay nangu ndogalu yàlla parce que demaat ci ci ndogal ci ci yoon mooy nga ni daanu naa. joon jox na dëgg Ousmane ko waaye ba tey nanguwuma kan ngay xeexal kan ngay xeexal président Macky kan lay xeexal est-ce que yàlla la bëgg a jàkkaar lool yàlla won na ko ko wanati ko ko ñu bàyyi Ousmane Sonko ñu xam ni tànneefu askan wi la askan du juum ndax askan dañu naan vox populi vox dei la voix du peuple et la voix de Dieu askan wi lii mu bëgg mooy li yàlla bëgg ci moom parce que yàlla moo koy dugal ci xolu doomu aadama yi ñu bëgg Ousmane Sonko nekk candidat Ousmane Sonko nekk seen candidat def nañu ba sonn mënul nekk nañu ko bàyyi mu bokk ci élection yi askanu Sénégal bu ñu ko tànnee mu nekk seen président ñu xam ni loolu la yàlla dogal ci moom bu fekkee dañu ragal naan bu Ousmane Sonko ñëwee dana leen toroxal Ousmane Sonko mi ma xam mën naa waat ci yàlla ni du jàkkaarloog doomu aadama di ko toroxal surtout pas un président Macky Sall buy doog a génn parce que toroxal ko mooy toroxal Sénégal li muy def te mu wóor ma ni bu doon man moom laay def keneen bu doon ci njukku bokk si ñun moom ngay def mooy lépp loo xam ni yoonu Sénégal décidé na ko ci nit yaa xam ancien président nga wala ministre yoon def liggéeyam waaye du ñu jàpp nit naan ko ñu ngi koy ciblé di chasse aux sorcières di toroxal donc nañu ko bàyyi nañu jox fiche de parrainage yi Ayib Daffé son mandataire national nañ ko jox ay fiche am Ousmane Sonko dina tànn ndax day dem parrainage citoyen wala day jël ay député ñu parrainé ko le 26 balaa mu jël Diomaye Faye mu ne kaay jiit xam nga loolu ak du solidarité bi nga xamante ne dafa dafa dafa réunir encore dafa suude ñaari ñaari ñi nga xamante ne ay kàlla la ñuul tey tey la gën a dëgëre. mooy Joola ak Séeréer ñaari yëpp yi dem nag aussi Diomaye Faye candidature am day dem Sonko muy dem ñoom ñaar ñu dem deuxième tour parce que ñoom seen parti bi mënul def sax du mu tigi Sonko ak Bassirou Sonko ak Bassirou mu ngay dem deuxième tour bu amee. mais ñoom moom du ñu nekk la troisième ma wax leen fi ma ko teg te mu ngi nii la jeunesse est là kii mag yi ñëpp Sonko mooy seen yaakaar doo bàyyi sa yaakaar nga dem eh, benn tas yaakaar depuis 12 ans ñu ngi fii ah tey la waayoo gën a aay ñu ngi daw fu nekk man tak demaa pare woon tey suñu ko intégré wul damay jël gaal daroon damaa naroon jël gaal ma dem mais léegi toog naa parce que sama pro dina bokku donc Sonko incha allah cinquième de la république du Sénégal. ku nga ne buñ ko intégré gaal tey su Sonko ne duñu bu Sonko di ci bokk man ngoon gii damay jël gaal ma génne Sénégal ma dem Guinée ma wala mais tey maa ngi jaajëfal magistrat bi jël courage parce que xam ñu ne kii jeexal na léegi bul kenn fa kii sacrifier sa carrière pour rien du tout Macky Sall dénk nañu ko réew mi pendant 12 loo ma defal pendant 12 doo ma diggee naan wala demee continuité continuité du fi am Ablaye Wade fii la ñu taxaw ñu ne ko sa doom doo ñu ko imposer donc Macky Sall Amadou Ba duñ ko imposer du nekk sa pour ngeen xam ko li ñuy wax daal parrainage am nañ 3 millions et on a on paie 8 millions non moom bu jëlee kat 3 millions de parrain parrain et eh, boo jël cinq millions kon ah kon xam nga ne ñun li ñuy def maître maître eh, El Hadj Diouf yaram naa ko tey parce que amul amul kii dafa mujjee ci làmb rek ci làmb naa ne Gris Bordeaux ak leneen leneen leneen xaaruñu ñu loolu. dafa newoon keroog fii ñu ne juge yi duñu duñu jox Sonko dégg mukk parce que seen fale eh, cour suprême jox na leen dégg tey lan moo xew droit ma ne naan def recours su defee recours de fekk sama pro bi jël na pièce de parrainage am et eh, dem na parrainé ji après lu ñuy def parce que xam naa ne man ragaluma loolu parce que déjà xam naa ne li ci des si nguuru gi le droit sera toujours dit suñ demee cour suprême aussi ci la ñuy gën a am dégg sax parce que ñoom droit la ñuy liir benn magistrat Sénégal fii incha allahu rabbi dañuy sàmmal suñu réew mi depuis problème Adji Sarr bu mu soxewee fii bi ñu ko laajee fële lan la wax affaire sortit yow affaire sortit bi nga xamante ne benn mu ne na benn affaire bu caaxaan mu dem eh, eh, kii en otage kii tout un pays trois ans kenn liggéeyul liggéey yàqu-yàqu mënoon nañu éviter lii mais ñun su tànnuñu nee na nguur pour nga ñëw fii di ñu yóbbu procédure yi dul jeex procédure yi nga xamante ne amul benn fondement doo xam bopp doo xam kenn Macky Sall président Macky Sall par respect son excellence préparez-vous videz vos bagages et Amadou Ba il faut avec vous voilà. su fekkee ne ret jàmm la ñuy doxal li leen di doxal moom moo di intérêt Sénégal. kon dañu war a jox Ousmane ay fiche bàyyi ko mu dem ci jongante bi ni ñëpp su fekkee nag état bi defu ko bu boobaa sénégalais yi ak addina bi léegi leer na leen nekk kon état bi nu muy doxalee dafa bëgg yàq suñu démocratie dafa bëgg tas suñu réew. direction générale est-ce que jamono ji amatul droit bañ. nañu bàyyi direction général des élections direction générale des élections dégg nga. dafa mel ni ki nga xam ne moom mooy téye saaku patron bi patron bi ministère de l'intérieur la ministère de l'intérieur état la fokk nit ñi xam ko kon ministère de l'intérieur moom moo mun a wax ay suqam ne leen delloo leen ko kon tey jii lépp lu loo xam ne que xew na ministère de l'intérieur la kooku il faut que mu leer ci bopp nit ñi ñu bàyyi direction générale des élections bàyyi direction automatisation du fichier électoral ñooñu ay sagrat la ñu gàddu saagu ministre bi la ñu gàddu gàddu ministre bi moo leen di joxoon def leen lii ñu def ko tëral leen lii ñu tëral ko kon léegi ministère bi la ñu interpellé te it le ministère président la république la ñu interpellé dégg nga dañ bàyyi caaxaan yi bàyyi nit ñi ci seen jàmm élection yi dem nu mu waree su yàlla dogalee ne ko Ousmane la ala kulli alin muy nii muy nele dina jiite réew mi bokk na wala bokkul man loolu laay laaj.